billahi mina sheytaani bismillahi rahmaani rahim ah, mbokk jullit yi ak eh, mbokk Sénégal mbokk képp kuy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah woo eh, ci suñu xadaratul juma bi nga xam ne mooy tëj bi eh, waa ab naaw xadaratul tijaan yi ko ko di ko def ñu koy def depuis des années nag lii nag ñun jigéen ñi dafa mel nu dañu aaye ndax jour ab naaw bi dafa taseet journée bi nga xam ne moom la ñu jagleel jigéen ñi ci àddina bi waaw ñu def nag benn appel spécial appel spécial bi di ko woo mbooleem kuy jullit ak ku dul jullit sax ndax xadara moom yiw la te yàlla yiw bu ñu jégleel yàlla la Cheikh Ahmed Tijani Cherif moo ko moo ko moom ndax journée bi Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine moo ko moo ko jagleel leen Cheikh mu nekk nag di xadra ñuy xadra année bi yëpp ba bi yoon nag bu ñu ne dernier jour koor gi avant seen euh, euh, vendredi avant koor gi ñu tëjee ko euh, année yi kon nag ñu ngi ci woo képp kuy jigéen képp kuy góor ñu ñëw Euh, teewe ko nañu ko daan teewe naka borom bëggee woon ndax boobu ba léegi wàccuñu yoon wi nag wax dëgg yàlla di ci di ci félicité waa àdduna wu xadratu tijaaniya ñoom ñëpp wax dëgg yàlla bi naka góor ga bëggee woon ba léegi ñëpp ñu ngi koy def ñu ciy woo rek ñëpp nag woo jullit woo mag woo ndaw euh, woo jigéen ñi particulièrement parce que euh, le sëñ Mansour si radiallahu taala anhu daan wax ne dafa bés bi dafa ala daaw me bu yoon leen bés bi dafa ala daaw me dafa teeg xadara bi kasi teeg nag ñu jóg ñun jigéen ñi kon nag ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp nag ñëpp jigéenu jullit rek kuy jullit rek war nga ko mën a fekke eh, séddu ca yiw ba ah, ku ñëw nag na nga sol sa lu weex tàll wax dëgg yàlla eh, ndax journée bi noonu la laaj ñu ñëw sàbbaar yàlla daf ko dellu ko ci liggéey la sëñ Abdou waxoon ne que moom dafa bëggoon contribution bu mu def ci kër gi ci tarixa bi lii mooy contribution ci tarixa bi te ñëpp xam nañu sëñ Abdou Aziz Al yàlla xaw ma lu mu defaloon yàlla waaye ñu ngi ko koy fay koy fay ndax nag moo ko liggéey ci ndaw ñi nag ñu ngi woo ñëpp ñëw fekke ko nanu ko ñu ànd ak sell jàpp ba sell ñëw sàbbaar yàlla ah jaamu yàlla la jox ko la mum moom bu ñu ca paree loolu sax xëy na ñun jigéen ñi dinaa ci def appel eh, wax dëgg yàlla jarul greffage jarul pose ongle jarul pose xef ndax jaamu yàlla la te yàlla nag wax dëgg yàlla ku koy jaamu war ngaa set sell sangu ba set waaw xam naa ni sax xëy na puudar yëpp du mën a ñàkk wax dëgg yàlla waaye rek ñu def ko mu sobre rek lu sobre ñu ñëw jaamu yàlla ñu bàyyi xef yeeg greffage yeeg pose ongle yeeg yenn maquillage yooyu yëpp nañu ko baax ndax question de deux heures de temps la ñu ñëw nag jaamu yàlla ànd ak suñu càmm yu baax yi euh, def ko journée euh, boo xam ne vraiment nañu koy tëjee vendredi boobu ñu tëjee ko nag euh, xadra yi koor gi passé ñu doog a dooraat ah di di di ñaan itam comme dafa nekk journée pour jigéen ñi xam ne ñun jigéen ñi tout temps bu ñuy def dara rek dañuy bëgg toujours ci dugal social waaw ah, social boobu nag ren dañu ko bëgg waaw ah, wax dëgg yàlla bu ñu ko mënoon jigéen bu ñëw rek nañu indi cent franc ndax gox ba ñu koy defee amaana am na hôpital amaana am na ku fa feebar amul lu mu jënd ordonnance am nga te comme occasion la ñëpp dajaloo bu ñu mënoon rek ku nekk indi cent franc soxla dara lu cent franc waaw bu ñu ko defee dajale ko bu ñu ko jëndee léegi yóbbu ko seet ko ci hôpitaux yi wala foofu ñoo xam ne mën nañ leen ci jàppale ñu jëndal leen dara te na ci baax mu nekk benn caractère social loolu nag ñun jigéen ñi ñoo ko ci rax parce que dañoo bëgg a marqué suñu empreinte waaw ci journée bi xam ni que nag ñun tey bi yoon ñoo aye comme ñoo aye nag il faut ñu marqué suñu empreinte bu keneen xewlee itam li mu def baax na waaye ñun jigéen ñi daal waaw ñu bëggoon rek c'est xam ne initiative bu baax la ndax dajal bëggoon nañu dajali dara waaye dafa gàtt mais nañu ko def ci na bi rek lu ñu fa dajal rek ñu seet bu fa gën a jege rek ñu ne ko ah lii nag ñoo leen ko jàppale kon nag yaakaar naa ne appel baa ngoog euh, le huit incha allah bu ñu jullee tisbaar rek ñëpp ñu dajaloo ca stade Amadou Barry wax dëgg yàlla dem def la ñu war a def ah xam naa discours yi sax du yaay wax dëgg yàlla de. mais jaamu yàlla moo ñu fi gën a indi donc na ñëpp ñëw sell set euh, comme je dis sobre sell set sobre nañ ko defee noonu sell set sobre ñëw <laughs> trois heures yi <laughs> waaw ñu ñëw sell set sobre vraiment ñëw jaamu yàlla ah, def lu ñu war a def rek ba déwén incha allah kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf